anhu jëlee nañ ba tey ci kiñ mujjoon wax kan la anas bu ne waa anhu tuddul tur wa rek mooy ka mujjoon wax xadis ca moom lañ jëlewaat bi ba tey kon anas wax na ne anna aba bakrin kaana yusalli bihim fi wajaci nabii sallallahu alayhi wa sallam alladi tuwafiya fihi kaana nekkoon na moom aboubacar yusalli bihim di jiite nit ñi fi wajaci nabii ci feebarug yonent boobu nga xam ne tuwafiya fihi ci la yonent bi faatoo sallallahu alayhi wa sallam xata ida kaana yowmul isnayni ba bisub altine jot wahum su foofun fi salaati kon yonent nekk na ci feebar bi feebar bi métti na ba benn bisub altine jot na kon ñu ne julli googa ci bis booba la wala boo gannaaw julli googa ñu mujjoon wax yonent dafa nekk ci biir këram sàppe yi saaba yi taxawal nañ ko ba rafetal seenug julli ñu nga ci sàppe sa xam ngeen néegub yonent kërug yonent bi ak jàkk ji benn la woon mu ne yonent bi dal di dindi rido bi ci biir néegam janoog saaba yaa ngi def sàppe si di julli kashafa nabiyu sitral xujrati yonent bi dindi rido néeg bi yanzuru ilayna di ñu xool ñun jullit ñi ci biir jàkka ji wa huwa qaimun ka anna wajahu waraqatu mushafin yonent baa ngi ñuy xool ñu ngi ci biir jàkka ji sàppewu di julli kanamam gaa ngi mel ni benn këyit ci kaamil bi mel ni benn këyit ci leer ci rafet ci taar bi yonent génnee rido gi xool leen rek taar boobu lañ gis ci moom sallallahu alayhi wa sallam suma tabassama yadxaku yonent bi dal di muuñ di ree ak reeyam gu sell nga nga xam ne mosul ree ba xaqataay day muuñ rek ba nga gis bëñam ya ba mu génnee gis saaba yaa nga toogee noonu rek la dal di muuñ muuñam mu rafet moomu ñu gis kanamam gu tedd gu sell gu rafet googu fa xamam naa an naftanina min al faraji ñu dal di yittewoo nag gis yonent bi mu yegsi ci ñun ñu dal di yittewoo deferwaat ndax yonent bi ñëw fa xamam naa an naftanina min alfaraji bi ruyatihi bi ruyati nabii sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñuy teewoo gis yonent bi ndax namoon nañ ko bëgg nañ ko gisaat ci jàkkaa ji ci kanam saaba yépp yàkkamti nañu gis ko fa nakasa abu bakrin ala aqibayhi foofu nag ñu dal di yégee ne yonent def na loolu saaba yépp yi teewoo janoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aboubacar it dal di yëg loolu moom it dal di dellu siwaat ci gannaaw pour bokkaat ci sàppe su njëkk si bàyyi yonent place mu ñëw jiite julli gi li yusalli safa li yasilla safa dellu na gannaaw ngir bokk ci sàppe su njëkk si wa zanna anna nabia sallallahu alayhi wa sallam xaarijun ila salaati ndax dafa foogoon ne yonent dafa génn si pour ñëw si julli gi fa ashaara ilayna nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dal di ñu junjaat wane ne bi yeddi yi ci loxoom la junjeewaat wane ne an atimu salaatakum taxawal leen seen julli ni ngeen ko taxawale woon mottali leen seen julli ni ngeen ko doon mottalee ci jiiteeg Aboubacar wa arxa sitra mu delloowaat ridoob néegam ba fa tuwafiya min yawmihi ci bis boobu nag la yonent sallallahu alayhi wasallam faatu kon gis na yonent bi moom sallallahu alayhi wasallam sahaaba yaa ngi taxaw rafetal nañ seen taxawaay ubbi na rido beeg taaram bi leer ga dugg na ci biir jullit ñi dégg nañu mu digal ne na Aboubacar jiite rek ngeen wéyal na ngeen doon defee ak muñam gu rafet ga gu tedd ga sallallahu alayhi wa sallam ci bis boobu la génn àddina muy bisub ak altine muy bis bu rëy bis bu am leer bis boo xam ne ci la ñuy yéegal jëfi jaam yi ñuy dem ci seen borom muy dem ci seen borom bis bu rëy ngoogu sallallahu alayhi wa sallam hadis la boo xam ne rawaahu solo na hadis bi cheykhaani cheykhaani wallahu yàlla nag alam moo xam moo xam moo xam lépp luñ ci wax ak luñ ci commentaire yàlla rek a xam waaye daal fu ñu tuddee yonent bi rek bëgg naa ku mu doon ci ñun teewlu mbëggeel ga sahaaba ya amoon ci yonent bi ak niñ daan defee buñ gisaan yonent bi wala ñu yëg ne mu ngi ñëw seen biir yëg booba ñu daan am buñ wax ne ñun yonent bi sori nañu fuñ tuddee turam ba rek nañ teewluwaat jëmmam ji ba mel ni keroog muy dindi rido bi xool sahaaba yi yëg ba ñu amoon ak yàkkamti mu ñëw ci seen biir kenn ku déggati tur yonent bi rek teew loolu noonu yonent bi noonu la la jegee taaram beeg leeram gi noonu la la jegee kem sa mbëggeel nag ca noo ko tatagalee rek boo déggee turam ne la wër ni noonu la la yegsilee kon góor yi seen rawante seen ëppalante ci yonent bi mu ngi ci mbëggeel guñ ko bëgg rek ku la gën a bëgg yonent bi ku la gën a yëg yonent bi di julli ci moom rek kookaa la ëppale ci leeru yonent bi nga xam ne jamono bu nekk mu ngi sottee ko barab bu nekk la daj gox bu nekk la nekk
te nag leer ga mooy xam-xam mooy xam-xam sax fa mooy am am itam maa ngi dégg ci bàyyi cheikh al islam sunu sëñ radiallahu anhu mi nga xam ne jëmmam ji jëmm ji nuru woon jëmm yonent la sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhu mu wax ne dem na màkk burub màkk bi invité na borom xam-xam yi ñëwoon ci aj ga ci at moomu bañ invité ka jógee Afrique muy bàyyi ba ku nekk waxee la muy wax tagg buur ba bàyyi ne man ma jël sama kàddu ne balaa may tagg buur bi nag may leen ma ma tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat bu ñuy mën a ñëw fii tey bay aj si bay xamanteeg buur bi ba muy def invitation bii yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam bu taxuloo nag moom du fi mën a ñëw bay wuyu si woote buur bi kon nag balaa may gërëm buur bi may leen ma yéen ñi jiitaloon seen wax gërëm buur bi ma tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu wax waxi arabam xam-xamam bu jotele bu rafet ba am kenn ca mbooloo ma nekk waaw yow kañ nga génnee azhar jaamiatul azhar bi nga xam ne boroom xam-xam bu rëy bu nekk foog nañ ndax foofu rek la génnee kañ nga génnee azhar te xamuñ la bàyyi ne leen man jàngewuma azhar man sama réew laa jàngee su ma bàyyee ma jàngal te su ma bàyyi sax bàyyee ma ko jàngal mu teg ca nag la tax may nettali nettali bi mu ne xanaa ñoom dañoo xamul ne اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناس يخلق الهادي ناس لم تقم على آل قدير دار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناس أخلق هذه آياتك مستقيم على آية قد يمداد عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس أخلق هذه آياتك مستقيم على آية قد يمداد عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ndax mel ni li Cheikh Ibrahima mujj a jàngale conclusion la leneen sax ci téere bi conclusion lañ ko tudde ma gis ci ni dafa mel ni dafa tënk lépp luy njàngalam yonent ak lépp luy joxe ndonoli ak lépp luy xaw a niroog bu ñu ko xoolee ci sunu jamono passation de service ndax bu ñu xoolee ci njàngale mi yonent moo daan jiite jamono yu ne pour ñu gën a mën a jàpp jeexatu dars bi yonent moo daan jiite jamono yu ne jamono yu teewee rek mooy jiite mais ñu gis ni ci jeexalatu njàngale mi yonent mel na ni xaw na tardal boppam ci julli wala boog tardal na ci julli waaye lépp ci coobareem mu ñëw fekk Ababacar taxaw nekk di imam pour mu feral ko kon mel na ni jiital nañu Ababacar ci ci ci imaamatu gi waaye yonent ñëw sallallahu alayhi wa sallam fekk leen ci julli gi avancé mel ni Ababacar delloowaat na ko julli gi du mu ko defee yonent nangul ko ko julli te ñaareel ba mel ni yonent gën na kaa joxati pouvoir bi ndax ba mu ñëwee fekk na Ababacar taxaw mais yonent jiitewul dafa toog ba mu toogee mel ni dafa jiite ak Ababacar ndax dafa jiite Ababacar Ababacar jiite mbooloo mi ba ca mujjantal ga mu toog ci sant yàlla ak ci mbégte ndax jàng nañ ko mu xool ne la mu doon jàngale mat na ba mu yërndoo xool la mu jàngale lépp rafet lépp taaru ñëpp seen xol ubbeeku ci moom jiital ko mu xam leen ni kat maa fi na nag ba léegi waaye nag ci ndogalal yàlla man damay dem waaye maa fi desaat ci yéen ci Ababacar kon nag Ababacar jiiteel kon ñu gis ni ay toftalante la yoo xam ni njàngale mu leer a leer a leer la mu yonent sallallahu alayhi wa sallam jàngale wane ni moo fi ne ba léegi waaye nag moo fi ne di wuute ci ay xalifaam te xalifa yi yonent sallallahu alayhi wa sallam moo leen tànn ba léegi moo leen tànn kon nag nañu jàpp ni dëgg-dëgg njàngalem yonent njàngale mu leer la njàngalem yonent njàngalem dëgg la te loolu mooy wéy ila abad asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin ngir dëggal li nga wax xalifa segg xëy na moti léeg dars bu nekk daan naa ci gën a yaatal wax jegeel dégg loolu laa naroon nit fii waaye làmmiñ mënul wax la koy wax loo xol la bu xol noppi loolu làmmiñ rek mënatul yëngu bëggoon naa wax bëggoon naa wax yëg ne awma ndigalu wax ma noppi tàngooru biir nag bu tasee seddaayu biti mën naa sotti rongoñ dann muy ca bànneex la dann muy ca naqar la rongoñ daal loolu dina ko sotti li tax mënumaa wax xawma lan la waaye la ma yëg mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi fi jog te du fi jog te leeram gi mooy xam-xam bàyyi ma doon tàmbalee wax jotaayam ak arab ya ak waxam ju rëy ju leer ja lam wax mooy ñoom dañoo foog ne ndax ci azhar rek la nit mën a jàngee am xam-xam xanaa dañoo xamul ne leerub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëj na barab yépp bu dajee barab yépp kay université bi daj na barab yépp kon nag dikkandu leen njàngaleem yonent ci jamono bu nekk ku yëg ne mu ngi fi mbëggeel dëgg ci sa xol foo toll mooy ki lay jàngal kàddu jog jëmm feeñ mbaa lu mën a doon rek da nga ci jàngee kon ndax kàddu mosul dañ di jog waaye nopp du dégg xolay dégg jëmm mosul dañ di feeñ waaye bët du gis xolay gis ku yàlla ubbi sa xol nag sa bët dana gis lu nekk ci njàngaleem yonent sa nopp dina dégg lu nekk ci njàngaleem yonent sallallahu alayhi wa sallam kon kay leeram gi daj na fu nekk mu ngi jàngale lu nekk allahu akbar lii lenn ci li ma bëggoon tudd waaye ak la ca des ak la ca des daal déggal leen seen bopp leen yàlla may ak dégg alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina muhammadin wa ala alihi ñu julli ba beneen yoon bismillahi arrahmani arrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina muhammadin wa ala alihi ñoo ngi ci kitaabu salaat buntab fukkeel bi wax ci wàllu jullit juma albaabu alaashiru fi aljumaati wa fihi arbaatu fusulin wa xaatimatun alfaslu alawalu fi fadliha wa wujubiha bunt bi ci wàllu jullit juma lay wax bunt la boo xam ne nag mooy fukkeel ci biñ tàmbalee téere bi ak léegi am na ñeenti xaaj ak luñ mottalee ñeent ya bi ci njëkk nag mu ngi wax ci ngëneelu jullit juma ak wareef bi nga xam ne kenn ku nekk rek di jullit war na la qaala allahu jalla sha'nuhu yàlla wax na jalla màgg na sha'nuhu mbiram moom yàlla yàlla buñ ko tuddee rek dañuy wut lu ñu teg ci tur wa ngir def ci sunu xol màggaayam jalla màgg na sha'nuhu mbiram moom yàlla wala nga ne taala kowe na wala nga ne subhanahu wa taala loo ci wax rek tudd nga tur yàlla yaa ngay màggal ki nga tudd ci sa làmmiñ waaye nag yëg ko ci sa xol itam yàlla wax na ne yaa ayyuha alladina amanu ida nuudiya lilsalaati min yawmi aljumaati fasaw ila dicri llahi wa zaru lbaya dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun suratu jumaa saar wi nga xam ne moom lañ tuddee sax bisub ajjuma bi yàlla dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla ida nuudiya bu ñu wootee li salaat ci jëm ci julli ga di jullig ajjuma jëm ci julli ga min yowmil jumaati ci bisub ajjuma nee na fasaaw gaaw leen dox jëm ila zikrillahi ci julli ga wala ci xutba ga loo ci wax baax na julli ga xutba ga yépp tudd yàlla la gaaw leen dem ca julli ga déglu ji xutba ga wa zarul bay'a te ngeen bàyyi nag lépp lu aju ci njënd ak njaay njënd ak njaay bari na lool moo xam marché ba ñu xam la di jaay yiñ bëgg ñu dem jëndi wala moo xam jëflante bu mu mën a doon ci xeetu jëflante rek boo xam ne yaa ngi cee yaakaaree amee ci la nga bëgg bu mu mën a doon ci yooyu yëpp bàyyi ko bàyyi ga kat daalikum loolu de xayrun lakum moo gën ci yéen bàyyi jëndante jaayante ba dem wuyu ji tur yàlla wa nee na loolu moo gën in kuntum bu fekkee nekk ngeen taalamuuna di xam fi mbaax nekk yàlla santaane loolu ngeen dégg ci nag ne kon jullit juma dafa war jamono boo déggee ñu woote la wax nag woote ba mooy ba nga déggee ñu nodd nodd ga nga xam ne zawal la bu tusubaar jotee bisub juma ñu nodd nodd gay tegtale ne waxtu wa jot na jënd ak jaay bépp boo nekkoon rek bàyyi ko dem julli ji la jiitu nag nodd googu mën ngaa nekk sa njënd ak sa njaay aaye wuñu la ko waaye ba nga déggee nodd ga rek amatuloo sañ-sañu jënd dara wala jaay dara yow may jaay borom boutique yëpp ca waxtu woowu war nañoo tëj seen boutique borom liggéey yëpp it nag la ca war mooy nañ tëj seeni bureau dem wuyu ji wooteeb yàlla bi ndax yàlla nee na bu ngeen xamee la ca nekk ci yiw de da ngeen dem wuyu ji ko ndax loola de xayrun lakum moo gën ci yéen an abi hurayrata xadisa ngi ñu ngi ko jëlee ci abi hurayrata radiallahu anhu an innabii sallallahu alayhi wa sallam qaala mu wax moom aboubacar ne qaala mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xayru yawmin gën ci bés talaat alayhi shamsu jant dana ci fenki yowmul jumaati mooy bésub ajjuma gën ci bés bu jant di fenki mooy bésub ajjuma gën ci bés jant bi ci fenkee gën ci bés buñ ko waxoon rek xay xam nañu ne bés mooy fi jant bi fenkee ba muy duggee waaye nag ngeen déggaat ba tey itam gën ci bés jant bi ci fenkee wax la ju yaatu maanaam ndaxte fii ci bésub ajuma xuliqa aadamu lañ bind aadama muy cosaanu nekku mbindeef yi wa fii te ci bisub ajjuma ba tey uddu xilal jannata ci lañ ko dugaloon ajjana wa fii ci bisub ajjuma ba tey uxrija minha lañ ko génnee ajjana wala taqumu saatu illa fi yowmil jumaat te bis penc yi du taxaw lu dul ci bisub ajjuma lay taxaw rawahu alxamsatu xadis la boo xam ne juróom yëpp soloon nañ ko ilal buxaari ya bés la bu bari ngëneel wa zaada abu daawuda abu daawud dolli na ci xadis bi wax ne wa fihi tiba alayhi wa fihi ci bisub ajjuma ba tey tiba lañ baal alayhi ci aadama aadama xam nga moyoon na boromam ba mu lekkee garab ga nga xam ne borom bi aaye woon na ku ko lekk waaye ci bisub ajjuma nag la ko yàlla baal bakkaarab loola suma istabaahu rabbuhu fa taaba alayhi wa hada alquran wax nañu loolu kon nag balek yàlla aadama ca bakkaaram ba mu defoon ba mu lekkee garab ga nee na ci bisub ajjuma lañ ko ko baal wa fii te tey ba tey ci bisub ajjuma maata la dee moom aadama wal mawtu tuhfatul muminina loolu xaakim solo na ko di wax ne mawtu moom may gu rëy la nekkal ñi gëm yàlla dee ñu barañ koy ragal waaye ka war a ragal dee mooy ka nga xam ne nekkul ci dara lu dëppoog lu baax di ragal taseeg boromam borom bi xisaab ko ca lu bonam la waaye duut lu mën a ñàkk ci kenn may la gu yàlla may ñëpp amul kenn ku ko dul jël nag waaye képp koo xam ne yàlla baaxe na la yaa nga tegu ci yoonu njub di def la la war bu ragal dajeeg sa borom boobu nga xam ne yaa ngay def lu ko gërëm loo ndax bés boo dajeeg moom rek da ngay am lu la gën a gërëm loo itam kon nag tegu ci yoon wu baax def la la war bégal te xam ne sag nekk ci àddina bi day baax sag dem ci àllaaxira itam wuy ji borom ba bés ba mu jotee day baax rek wa fii taqumu saatu bés penci ci bésub àjjuma lay taxaw te wa ma min daabatin illa wa hiya musixatun amul benn rab lu dul ne mu ngay tiit ci bés penc bés penc bés la boo xam ne ñëpp a ko war a tiital looy tiital nag mooy da nga koy fagarul ba boo dajee ak borom ba fekkoon am nga lu baax bu la xisaabee fayanteeg yow ci sa lu baax la nga texe kon ñëpp war a ragal bés ba ragal ga nag bu mu nekk ragal rek ragal gu ànd ak góorgóorlu ndax bés ba mën a nekk bés bu neex ci yow amul benn nag mbindeef gudul ragal na bés penc daaba yépp bu ñu xëyee ñoo ngi séentu yaakaar ne bés bi tey la bés bi tey la doomu aadama rek mooy ki nga xam ne moo ginne yi ñoom dañoo mel ni dañoo fàtte ne bés penc war naa am ñooy saqalee ni wa anhu jëlee nañ ba tey ci abi hurayrata an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu jëlee ci yonent bi xaala mu wax moom yonent bi ne naxnul axiruuna ñun ñooy ñu mujj ñi ñooy ñiy mujj a feeñ ci àddina amul beneen xeet buy ñëwati yonent bi wax na wax ji mu ne kon moom xeetam ñooy ñiy mujj a feeñ ci mboolem xeet yi xam nga xeet yi bari woon nañ lool yonent bu nekk ak ña doon xeetam yonent nag nee na ñun ñooy axiruuna yi asaabiquuna yowmal qiyaamati te it ñooy ñi jiitu bés penc ñoo mujj a feeñ waaye ñooy njëkk dugg àjjana itam yépp bayda annahum uutul kitaaba min qablina ànd ak it ne ñi jiitu woon ci aw xeet ñoom lañu joxoon ay téere njëkk ñun ñu jot suñu téere di alquran wa ootinaahu min baadihim ñun ñu jox ñu sunu téere seen gannaaw summa haada yowmuhum alladi farada allahu alayhim bii bés di bésub ajjuma ci la yàlla farataaloon ci ñoom seen jaamu yàlla yi waaye faxtalafoo fiihi ñu bañ a matee loola yàlla santoon leen ci bésub ajjuma lu mel ni nit yi Muusa yi ñu laaj Muusa alayhi salaam ne yàlla na leen wëttalal bésub ajjuma defal leen ku mu nekk bésub samedi yàlla defal leen bés ba muy bésub samedi fa hadaana allahu lahu ñun yàlla may ñu bésub ajjuma mu nekk suñu bés fa naasu nit ñi lanaa fii tabaun nit ñi ñëpp nag dal di ñu topp ci lii maanaam bés la boo xam ne yàlla may nañu ko ñoo ko moom ñeneen ñi nag la ko topp ci suñu kaw al yahudu raddan la ñu am yahud yi bésub samedi la ñu am ñoom muy seen bés wa nasaara nasaraan yi baada raddin gannaaw ëllëg sa di bésub dimanche ñoom moom la ñu am kon suñu feet ñun moo jiitu mooy bésub àjjuma seeni feet ñoom doog a ñëw rawahu cheykhaani wa nisaiyu wali muslimin muslim nettali na xadis bi wax ne nahnu al axiruuna al awaloona ñun ñooy ñu mujj ñi waaye al awaloona ñooy ñu njëkk ña itam yowmal xiyaama ci bis penc nii la ko muslim nettalee ñun ñooy ñu mujj waaye ñooy ñi njëkk yowmal xiyaam ci dugg àjjana wa nahnu awwalu man yadxulul jannata ñooy njëkk a dugg àjjana wa anhu ba tey jëlee nañ ci moom mu wax ne sami'tu dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne ala awaadi minbarihi ba muy wax wax ja mu ngi taxaw ci kaw minbaram wax ne la yantahiyanna aqwaamun han wadcihimu jumaati aw la yaxtimanna allahu ala qulubihim summa la yakununna min alxaafilina yonent sallallahu alayhi wa sallam abu hurayrata nee na dégg na ko mu ngi taxaw ci kaw mihrabam ci kaw minbaram di wax ne nañu bàyyi wuute bisub ajuma nañu bàyyi di ko wuute maanaam di ko ñàkk teewee xam ne duñ koy teewee yàlla mën naa kaste seen xol bëggam yàlla dootu ci nekk summa la yakununna min alxaafiliina ñu dal di bokk nag ca far ñu sàggan ña nga xam ne dañoo bind ne ñoom ñu sàggan lañu xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absaarihim xishawa wa lahum azabun azim wax jooju nga xam ne yàlla nga ko wax ku sàggan bañ a teewee di jullit juma wax jooju mën naa dal ci kawam lu baax lu mu mën a doon daal képp ku tàmbali di ko def jéema la saxal lu baax la nga am ak texe gu matale tàmbali lu baax bàyyi ko baaxul mën na yàq nit ki ci wàll yu bare bare bari moo tax ngay gis góor ñi sax buñ lay jox lay seen wirde ya dañuy sartowanteeg yow ne bul ko bàyyeeti ndaxte falu la buñ lay fal ku falu nag jot nguur ak falu ni mu neexee bul fexeeti def luy tax ñu lay folli ca fal ga kon nag lislaam teraanga la bisub àjjuma rawatina teraanga ju réy la nekkal ñu kon bu leen ko bàyyi yonent kat nee na ku ko bàyyi yàlla mën na dem ba kaste xolam mu mujj nekk ku widd yàlla muy hadis boo xam ne muslim ak nisaa yu ak ahmad yépp solo nañu ko han abil jaadi addamri radiallahu anhu benn saxaaba la woon boo xam ne ibnu bakr ibni abdul manaf soloo na lu man ñeenti xadis ci xadis yi bindal nañ ko lu man ñeenti xadis ne soloo na ko moo jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent wax na ne man taraka salaata jumain tahawunan biha taba allahu ala qalbihi ku bàyyi ñetti jumaa yu toflante yum demul te dara taxu koo bàyyi jumaa yooyal lu dul sàggane ko rek lu dul doodal jumaa rek nee na na xam ne yàlla tàppe na xolam def na ca daal ak weddi tàppe na xolam maanaam kaste na xolam ba yiw dootul dugg ci xol ba te loolu mën naa jural borom nag mu mujj nekk ku weddi yàlla ni ki yàlla waxee ne bal taba allahu alayha bi kufrihim fala yuminuuna ila qalilan xadis la boo xam ne ashaabu sunan ak xakim solo nañu ko an ibni abbasin radiallahu anhuma an innabiyi sal allahu alayhi wa sallama qaala man taraka aljumaata min gayri daruratin kutiba munafiqan fi kitabin la yumxa wala yubaddalu rawahu shafii hadisa ngi ibni abbas moo ko solo jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent wax ne man taraka ku bàyyi aljumaata jullit juma min gayri daruratin ci dul benn lor bu tax mu bàyyi jumaa ja kutiba munafiqan danañ ko bind ca liste ba ñuy bind nafiq ya ne moom it ca la bokk ñu ngi koy bind nag fi kitaabin ci téere boo xam ne laa yum xaa kenn du ko far mukk ndax mbindam yàlla lay doon wala yu baddalu te kenn du wëccal téere ba it di indi beneen téere dañ ko cee bind rek mu nekk ci ba faw rawaahu shafii yu xadis la bu shafii yi solo kon yittewoo daal màggal bés bi te teewee julli ga déglu xutba ga lislaam bëgg na ko ci jullit bu nekk wali abi daawuda wa nisaa yi jëlee nañ ci abi daawud ak nisaa yi ñoom ñu wax ni man tarakal jumaati bi gayri usrin ku bàyyi aljuma ci lu dul ngant fal yatasaddaq na saraxe bi dinaarin ci dinaar ku bàyyi jullik juma ci lu dul ngant def na lu ñaaw def na lu doywaar lu bon waaye nag saraxe ab dinaar fa in lam yajid bu amuleeb dinaar fa bi nisfi dinaarin na saraxe boo genn wàllub dinaar mu mel ni da nga ne ku bàyyi juma ji ci lu dul ngant na ut ab mille francs saraxe ko bu ko amul na jël genn wàllug mille francs ni ki ab téeméer saraxe ko loolu it lu tax li tax mooy jéem a ut sarax soo xam ne yàlla dala cay fanqalee lu ñaaw ndax yonent jàngal nañu ne na ngeen di fegal seen bopp ak seen njaboot safara walaw bi shaqi tamratin donte benn doomu tàndarma la sax nga xaaj ko joxe genn wàll ga yàlla mën na la caa faral sa yu ñaaw kon nag ku bàyyi jumaa ji tey ko lu ñaaw ñëwal na ko na saraxe sarax yàlla mën na ko ca faral loola ni ko yàlla waxee ne inal xasanaati yuzhibna sayyiaati yu baax yi dañuy yóbbee yu bon yi kon ñu ne dañu fexe saraxe rek ndax yàlla dàqal ñu lor ga nekk ca bàyyi jumaa ja alladina tajibu alayhim aljumaatu buntab ñaareel bi day wax te ña nga xam ne ñoom nag la julli juma war julli juma warul ñëpp ñoom war a ngi nii ñu war leen tudd han xabsata radiallahu anha xabsata soxna si yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam omar ibni xataab jur ko xam ngeen yonent bi denc na doomu Aboubacar di Aïchatu denc na doomi Omar ibn Xataab itam di Xafsatu qaala wax na ne ala kulli muxtalimin rawaahul jumaati ala kulli muxtalimin ku gént ku nekk rek war na ko rawaahul jumaati mu dem ca jumaa ja kon rawaaxu bi xaaun la bokkul raw bokkul ak rawaaxu bi nga xam ne xaaun la bii li muy tekki mooy gont dem ci barab jullit jumaa jot na ku gént ku nekk rek war na ko mu dem julli ci jumaa ja wa ala kulli man raaxal jumaatal fuslu te képp kuy dem ci ajuma itam julli ji war na la nga sangu buntab cangaay dana ñëw ca kanam waaye ngeen déggagum lii ñu ci tudd rek rawahu abu dawuda wa nisaiyu an taariq ibni shihabin radiallahu anhu an nabiyi sal allahu alayhi wa sallam qaala aljumaatu xaqun waajibun yonente nee na juma àq la ju war ci kenn ku nekk mu mate ko farata la joo xam ne farata ju war ñépp la mooy duut loo xam ne kum neex nga def kum neex nga bàyyi mu mel ni fardul ayn fardul kifaaya déedéet lu war la ci kenn ku nekk aljumaatu jumaa xaqun lu war la wareef boo xam ne waajibun dafa war ala kulli muslimin ci jullit bu nekk fi jamaatin ñu defee ko ca mbooloo jullit bu am mbooloo rek war na ko mu julli ji jumaa ak mbooloo ma illa arbaatan lu dul ñeent nag ñeent ñii de ñoom jumaa waru leen abdun mamlukun jaam bu ñu moom jaam bu nekk ci ron kilifteefu sangam moom julli ji jumaa waru ko la ko war mooy na fexe matal lépp luy la sang ba bëgg ca moom ci liggéey ak ci lu mën a doon daal ci ay santaane boromam moom la ko war mooy na fexe mate ko aw imraatun wala jigéen ba tey shariatul islamiya waralul ci moom mu dem julli ji jumaa aw sabiyun wala xale bu géntagul moom it waru ko mu dem julli ji juma aw maridun wala ku feebar moom itam feebar bu dem ba sonnal borom munul àndoog mu toggoo dem ca jumaa ji julli ji ba tey itam waru ko buñ tuddee nag ñi mu warul dañ cay déggee ne lépp luy mbugal bu ñu waxoon ci ku bàyyi jumaa dana ko ca fekk ñii ñu wax ne waru leen moom buñ ko bàyyee itam mbugal yooyu nekkalu leen ndax waru leen waaye nag ku ca mën a julli ci ñoom itam nag lu rafet la dara nekkul ci dana am yool ba te it duñ wax ne waru ko julli ji na kon bu mu ko def ñaari rakka na ko def ñeenti rakka déedéet xam nga ki mu warul bu toogee kër ga du tax mu ne nañu jullee ci jumaa ji ñaari rakk noonu lay def ci kër gi déedéet ñeenti rakk la koy def kon nag waru ko waaye bu demoon julli ji itam rafet na na julli ak mbooloo ma ñaari rakka baax na dana am yoolab julli ji waaye bu ko bàyyee it nag bàkkaar nekkalu ko ci rawaahu solo na bi xadis abu dawuda wal bayhaqi wal xaakim solo nañu ko ñoom itam an abdillahi ibni amrin radiallahu anhuma an nabii sallallahu alayhi wa sallama jëlee nañ ci yonent bi xaalam wax moom yonent bi ne aljumaatu ala kulli man samia nidaa juma war na képp ku dégg woote ba xam ngeen aaya bañ tàmbalee ida nuudiya la wax ila salaati bu ñu wootee ci julli ga rek demal wuy ji kon képp ku dégg nodd ga rek war na la nga wuy ji waaye dégg googu nag bu mu tax nit wax ne man kat dégguma nodd kon dem wuy ji julli ga waruma ke yittewoo julli ga war naa sàmm wante ak waxtu wa ndax mën naa nekk koo xam ne xëy na bu ñu noddee du dégg nodd ga bu mu wax ne dégguma ko rek dem nga waruma boo ko déggee demal gaaw boo ko déggulee nag fekk yaa ngi doon def jënd ak njaayante la nga def ca waxtu woowa ñàkk dégg ga moo la ko yóbbee loola du toll ni ka nga xam ne dafa dégg nodd ga di def njënd ak njaay bokkul kon daal ku dégg nodd ga wala ku yëg waxtu wa demal dem nga war na la nii la nettalee xadis bi rawaahu abu daawuda wa daaral xutni yi buñ xasee ba tudd ne war nag ngeen xam ne war mooy lu tegu ci sa kaw te dut la wàcc mukk loolu la ñuy tekkee baatu bu war tusalli aw tusalla aljumaatu fi lmuduni walqura wa bayaanul adadi bunta ngi buy wax ne tusalla danañu julli aljumaatu fil muduni ci dëkk yu mag yi wal qura ak dëkk yu ndaw yi wa bayaanul adadi ak it day waxaale ci lim ba nga xam ne mooy doy bu ñu teewee jullik jumaa doga war mbooloo ma an ibni abbasin radiallahu anhuma ibnu abbas soloona jëlee ci yonente sallallahu alayhi wa sallam xaala mu wax ne an ibni abbasin kon ibnu abbas mooy wax buy wax nag waxam je ñu koy amal solo ba di ko nettali ci téere xadis yi mooy lu mu wax rek moo ngi ko jàngee ci njàngaleem yonente sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax moom ibnu abbas ndax moom moom baatub xaala bii nee na inna awala jumaatin jumiat ajjuma ji njëkk ci ajjuma yi ñu julli ko juma baada jumaatin fi masjidi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw jumaa ja nga xam ne julee nañ ko ci jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fi masjidi abdul qaysi mu ngi nekkoon ci jàkkaay abdul qaysi xam ngeen néegi yépp néegu yàlla la baytullahi la ñuy wax waaye ba tey nag aayul ka def yitteem ba tabax jàkkaam mbaa jumaam ñu joxaat ko turu jumaa ja wala jàkka ja aayul tekkiwul ne néegub keneen la ku dul yàlla déedéet néegub yàlla la ba léegi waaye nag néegu yàlla it mën nañ ko wutal tur yuñ ko xàmmee ak yeneen néeg ya ci askane ko ka nga xam ne moo taxaw ba néeg ba am dara nekkul ci kon ab néeg la boo xam ne ñu ngi koy tuddee masjid abdil qaysi bi juwaasa min al bahrayni ci dëkk la bu nekk ca juwaasa ca réew ma ñuy wax bahrayni nee na moo nekk jumaa ji njëkk ñu julli ci jumaa gannaaw jumaa wu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon jumaa ji njëkk a jullee mooy jumaa wu yonent gannaaw jumaa wu yonent nag jumaa ji ca topp ñu njëkk caa jullee ci mbooleem jumaa wu àddina bi la wax ne mooy jooju jumaa ci juwaasaa ci Bahrayn rawaahu al-Buxaari wa Abu Daawuda kon nag bunt bi mu ngi wax ne dañu war a julli jumaa dëkk yu mag ci dëkk yu mag yi ak dëkk yu ndaw yi kon dégg ngeen ñu tudd mudun mudunu buñ ko waxee jamoob médinatu la médinatu mooy benn dëkk mudunu mooy dëkk yu bari xaryatun mooy benn dëkk bu ndaw qura mooy dëkk yu bari yu ndaw lan mooy xaajale diggante ñaar yooyu mudun dëkk lay doon boo xam ne day làmbaayoo lépp loo xam ne dëkk bu mag war na ko am ndax dëkk bu dajale nit ñu bari war naa am lépp loo xam ne dañ koy soxlawoo ci wàllu atteeg ci wàllu marché ci wàllu jëflante yi nga xam ne lépp ci dëkk bi lay nekk bu ñu waxee nag xariyatul mooy dëkk bu ndaw boo xam ne jotul mën a am darajay lu mel noonu bu ko soxlaa dispensaire rek lépp loo xam ne mairie yu mel noonu da koy wuti ci dëkk ya nga xam ne médinatu la kon xariyatu dëkk bu ndaw la jotul am darajay mën a am yooyu yëpp meereeg yi ca war kon dëkk bu am meereeg yi ca war médinatu la tudd dëkk bu ko amul xariyatu la tudd عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه حديثا ñoo ngi koy jëlee ci Abdurahman doomi Kaab doomi Malik radiyallahu anhu wa kaana yaquudu abaahu ba'da dhahabi basarihi moom daf daan wamat baayam gannaaw bu baayam ñàkkee bëtam daf ko daan wamat di ko yóbbu ci julleekaay ba xaala wax na moom ne kaana abi ida samia nidaa yowma aljumaati su ma bàyyi bu déggaan woote ga ca bisub ajuma taraxama li asad ibni zurarata daf daan ñaan yërmandey borom bi ñaanal ko ki nga xam ne moo tuddoon asad ibnu zurarata bu déggaan ñu nodd rek mu dal di ñaanal asaad fa saaltuhu ma laaj ko an zalika lu waral loolu foo déggee ñu nodd rek nga ñaanal ko lu waral loolu fa qaala mu wax ni li annahu moom awwalu man jamaa bina fi hazami ndax moom mooy ki ñu njëkk a jullit jullit juma ci dëkk boobu ñuy wax hazam dëkk bi ñuy wax hazm moo ñu fa njëkk a jiite juma ci xasami nabiiti min xarati bani bayaadata kon dëkk la boo xam ne xasami nabiit la tudd ci xarati bani bayaadata askan woowa lañ koy dàkkantalee fi naqiin yuqaalu lahu naqiul xadimaati mu ngi nekkoon ci barab boo xam ne buñ daan jëlee ji ndox la di ndox moo xam ne ndox mu neex la woon mu set la mu baax barab ba moom lañ tuddee woon tur woowu naqiol xadimaat qultum mu ne mu wax ko laajam qultum ma wax ko ne ko kam antum yawma isin bés boobu nga xam ne ci la leen njëkk a jiite moom asaad moomu kenn la woon ci umara uy buur la woon bi mu leen di jiite ngeen di julli ci dëkk boobu di xariyatu ñaata ngeen woon xaala arbauna ñeent fukki nit lañu woon ñu déggee ci ñu déggee ci ne kon ñeent fukki nit bu ñu dajee woo ñoo mën a matal juma waaye nag dégg ñi bari na wutee la lool kii lii la tontu ñaata ngeen woon mu ne ñeent fukk juróom fukk lañu woon ñeent fukk lañu woon kon ñu ne ñeent fukki nit fu ñu dajee woo mën nañoo julli juma waaye am na ñeneen ñu wax leneen ak leneen wax ya bari na wutee na lool dem nañ bay wax naan fukki nit ak ñaar sax mën nañoo julli juma am sax ñu wax ne mën naa yées loolu ba ñeenti nit kon wax ya bari na wute